Khalifa Niass waaw mbooloo mi asalaamaaleykum tey nag danaa xaw a bett waa làmb ndax ñi ëpp foog nañ ne xamuma dara ci làmb waaye maa ngi njàkk njëkk seetaan làmb 1956 boo génnee ñi man ne ñu juddu gannaaw 56 lañ judd ci booba mbër yi nga xam ne ñoom ñooy taarix te diggu mu ngeen leen di tudd ka njëkkoon mooy ma doon xulle ak jéeri Sadio ak Issa Fall après génération bu bees génn bekkaay 1 ca la bokkoon Abdourahmane Ndiaye Falang dëkk fii ci Jendeer gannaaw ga la mbëri caaro yi ñoom ñoo fi jëkk a daje nekk benn corporation euh, boo xam ne ay mbër yu ànd lañ ke magoon di seeni mbay njaay ak màgge ndiir ñu di wax Thérèse ndiir ak Alassane Diop bi nga xam ne moo nekkoon Bekaay 2 ak Mor Jenn biñ daan wooye Ray Sugar ki daan ànd ak ñoom di Ousmane Mbeng Mbaaw ki fi jëkk a organiser gàmmo ma ne làmb xam nga léegi ci euh, gàmmu gi rek la xam maanaam euh, ñi ngeen tudd léegi mooy ñi kii mbër yi comme genre kii mbeng ah promoteur yi ki ko njëkk a nekk mooy Matar Mbeng góor gi Matar Mbeng moo njëkk a nekk promoteur moom ak ku ñu daan wax Alassane fay mu doon liggéey Môle 2 xëy na ay doom ak tam ñu ngi may dégg après nag la yeneen i mbër door a génn diggante ay boori paataar boori Diouf paataar la dëkk maanaam landing landing njàmme après euh, saasu njaay génn waaw waaw noonu la loola nag dafa am koo xam ni kuñ daan wax seen gànjaay ci deuxième catégorie la daan bëre mu ñëw nag boobu sama papa ngi fi ñu ne naa leen ñaanal a ah, ma am ma tàggu ko mu ne waaw mu ne ma ah ku ànd mbër mu daanu doo am gàcce ma ne ko ah kay mu ne ma dangaa bëgg sa mbër du daanu ma ne ko waaw mu am lu ma wax ba ma demee ba ma leen ko defalee mbëri caaro yi dañ doon daan rek mosuñu am jël secret baa ngi fii nag waaye nag defatuñ ko léegi ah parce que dafay araam nga def kon déedéet mukk mukk mukk waaye dama bëgg a wax ne boo def naa boole naa Mor Dieng ak Bori Patar Bori Patar mën na ko ñett waaye bi ñu bëree ba mu daan ko bi mu ñëwee mu ne man kenn laa dëkk waaye juróom-ñeenti mbërë doon bëreel gisul gisul kenn ki juróom-ñeenti la kon nag itam ma di la wax euh, ni la na ngeen jël taarix lu lu amul histoire c'est sans histoire ñooñu fi nekkoon dem premier promoteur premier mbër première catégorie ñooñu ay maam lañ ci mbër yi fi des kenn du leen tudd loolu rek a tax ma jël parole bi nag pour fàttali leen ko léegi ñu ñëpp faatiye mën ko wax ci kaw wala sa xol faatiye benn rek la ci sama ko ciy teg muy wasalaam bismillah jërë ngeen jëf Demba Ka ca kaw ca kanam di